aywa mi ngi noonu alaaji booga la gannaaw ñi nga xam ne dañ fay jóge léegi tey nag ñu dala ko day suñu rakk di suñu xarit di euh, farmare man boo xam ni àdduna bi ñëpp ko xam ñu bàyyi xel muy artiste boo xamante ni si nag vraiment mi ngi def na il a marqué nag son quelque chose nak ki nga xam ne mooy musique sénégalaise muy kan muy mbay si njaay bu ñu waxee mbay si njaay xel yépp dem ci sëriñ babacar si mhm. waaye bu ñu waxee mbay si njaay ne xel yi dem ci sëriñ fàllu mbay Sy Ndiaye di kenn koo xam ne kenn dootu ko présenté kenn boogaa ko mooy Mbaye Sy Ndiaye Mbaye Sy ñi ngi lay nuyu. borom kër gi nga xamante ni mooy Ibrahima xalilu Seck di xale bu am jom xale bu am fulla di sama frère waaye di sama cousin macha allah ma ñëw fi am mbégte nag ak contentement bu wér fekk fi équipe bu jeune ay xale yu bëgg lu ñuy def waaye mën ko nag lool wax dëgg yàlla avenir musique sénégalais daal. wax dëgg yàlla ak télémusique ñun suñu xel dal na. avenir u ak télémusique ñun suñu xel dal na ba tax na dañu fay dalal koo xamante ni si guma mi ci màngu Njaay lañu koy taggee waaye ndeer ma ca tubaay nelaw waaye bu ñu neexee dañu naan mariasin may sa bigé may sa bigé maar mm-hmm. aju naa nga den doon njarka dema ma ca laab mbaay ñiinoo ñiin ñiin faramaareen waaye nag tey damay dal ci kawam ndax dama koo yàkkamti woon lool mbay ñëw teew ci sama plateau ndax ma mën a jàkkaarloog moom mm-hmm. ndax nijaay mm-hmm. yëg nga ni mbay si dafa créer ab kuréel tuddee ko ci lañ ci lañ bokk ci lañ ci bi ci njëkk mooy tey mu nekk première plateau am fii ci Télé Musique Sénégal mm. mbay si lay laaj lan moo waral nga créer ab mouvement tuddee ko ci lañ. waaw fête de la musique bi sax ñun ci lañ moo tax ñu def dérangement ak déplacement ñëw. ok ah, ok ah, télé musique bi ñun ci lañ. moo ah. tax ñu def suñu dérangement ak déplacement ñëw. xam nga ci lañ nag moom dafa nekk loo xamante ni lépp loo xamante ni rek. Mm. suñu ak suñu yelleef la. Mm. ñu am ca. lu ñu war jël mhm. ci la ñu dañuy jug rek daal koy jël dañuy jug daal koy jël waaye la ma gis mhm. ya. mhm. ni mbay si fan yii da nga waajal da nga def ab single woo ci say nawle woo ci ay waykat daan ne monsieur le président xooma gala ñi réer na xooma la nag lan réer na et monsieur le président ñun kañ la ñuy tëgg waaw sunu for yaa ngi màgget gala ñi réer na peeg yi yëg yëpp réer na ndax toogaay bu yàgg sabar yi pënd na lépp pënd na ndax nag baykat du tool. Mm. te wax dëgg yàlla géwal gëj naa yëngu. Mm. fecckat yi euh, maanaam réew mi daal gëj naa neex ci gàccal. Mm. maanaam ci lañ li ko tax a jug mooy dañu bokk ci réew mi am fi carte d'identité juddoo fi yaroo fi màgge fi. dëkk bi nekk suñu dëkk. amuñu lu dul moom am ciy doom. kon réew mi ci lañ. ñu dem gis président son excellence ñu ngi koy nuyuwaale bu wër. moom ak képp koo xamante ni rek yaa ngi koy jàppale ci réew mi ak képp ku ne ci réew mi. mu am kombaam ñu càpp wax ko docteur yi jug xam ne seen domaine la waaye artistes yi tamit jug wan ko ni ko ñun lii ci lañu lancel ko message mm-hmm. ah, daal di sensibiliser jàppale ko ci combat yi mm-hmm. ba nga xamante ni tey jii képp ku déggul woon lii li ñu wax ni corona capable na pour def ko mm-hmm. gars yi daal di jug artistes yi moo xam rappeur ñëpp daal ñi ko war a bongo bongo ko ñi ko war a mbalax mbalax ko ñi ko war a way way ko xam la ñu def loolu jàppale ko. Mm. ñu dem ba nga xamante ni gis nañ ni président génn na ni il faut que ñu nag ñu apprendre naka la ñu nekkee ak virus bi. Mm-hmm. wax dëgg yàlla commencé bàyyi dem beeg dikk bi. Mm-hmm. commencé tijji casino yi. Mm-hmm. commencé tijji restaurant yi. ñun tamit ñu jug nii solution yi ñuy tijji ñun ci lañ. ñun artistes yi. ñu wutal solution wax ñu naka lañ mën a def ba ñun tamit ñu mën a dem liggéey parce que artistes tamit toog 3 mois liggéeyiwul. wax deug yalla da fay doy wat ci li nga xamanteni ci nga dan fay sa appartement ci nga dan joxe dépense ci nga dan fajj say dom ci nga dan dimbali ko bëgg dimbali sa dekk no bi nga xamanteni tay da lan mm. bu bëttam xonké yow lay ñew fëgg mm. wax deug yalla amna sax ño xamanteni muy suñu mbokk jankat yi tay ku melni pafay zikrullah xamni tay da yor ay xinam wala ku melni ali badra da yor seen xin ñu len di wo ñu indi seen kurel di deug ñu len di fay tay ku melni sabu samb xamanteni da indi ay tabalam ci beurep ñu fay ko mu ñew ku melni asan gawlo buma limé fi lay fanan amna ño xamanteni tay ay jigel lañu mëna togg lool créé woon loolu ñu ne wax ay traiteur mhm. association di wër ci xew di togg ñu leen di mhm. fay ñooñu ñëpp liggéeyatuñu mhm. tey am na koo xamante ni daraan xëy dem jënd matériel am sonoom mu seer lool yaakaar lu ci lu dul ay concert ak i ngénte ak i mariage wala tey soirée tey kooku affaire bi daf ko amputé wax dëgg yàlla mbir la moo xamante ni nous sommes bien ak conscients que ni mm. feebar bi am na. Mm. waaye comme dañuy apprendre naka la ñu nekkee moom. Mm. parce que xamaguñu kañ la ak naka la. nañu jéem a xool naka la ñu mën a def ba ñooñu nga xamante ni tey ay soutien de famille lañ ay père de famille lañ. ñu mën a jug dem liggéey. lii moo tax a jug ci lañ. Ah, ah, bi nga dooree li nga xamante ni si mooy mouvement ci lañ. Euh, ànd ci ak ay sa ay nawle est-ce que bari na ñoo xamante ni si ñoom it sa ay nawle géwél lañu comme yow jug ànd ak yow jàppale la ci combat bi ndéem ba mboolem woowul ñoo xam ne yëf yi ñoom it ci lañu. waa xam nga yëf yi moom. Mm. man jàpp naa ni képp ku ci boolewul sa bopp rek. Mm. ah man de wax dëgg yàlla. Mm. lépp loo xamante ni yëf yi noobul la. dañoo bëgg liggéey. ñi ngi wutal ñëpp système bu ñu liggéeyee. nañ ñu wax ban système la ñu mën a jug pour dem liggéey. ah loolu de yaakaar naa ni képp ku képp képp ku bëgg lu baax ci ci nga. ndax ci nga mooy ci lañ. waaw solution yi. Uh-huh. ndax yow mii tax tey jii yaa ngi ci biir ci lañ. Ah. parce que ci lañ mooy réew mi dañ fee bokk tey. macha ku yokkul ku ne yaa wàññi yaa wàññi bi nga dikkee ku ne xam na ni ah kii de wax dëgg yàlla ku ko mm. jur Mama Mbaye mm. ku ko jur Ndeye Fatou Ndiaye mm. ah mi ngi marqué empreinte am ci réew mi réew mi ci nga ci lañ ah. dafa yaatu ci lañ dafa yaatu tonton Assane ci lañ man de xam naa ni comme ci lañ te ci lañ gi maanaam day soos. Mhm. su ko defee da ngay jël kii jox ñi ñu laal. ñu laal waaw ñu laal. waaw moom ci la dëkk ndax bu ma juumul ñu mën a ñu mën a wéyale tuuti. ñu mën a wéyale ak yow ak yow ndax mbay si. Ah. ndax mbay si moom euh, mm-hmm. ànd gi ñu war a ànd ak moom tey du ah. jeex te du ah. mës a jeex ndax danoo war a yaatal lu bari. Euh, suñu diggante ñu nag moom ay man xam naa li ma ciy dolli mooy. xam nga quand on parle des artistes. Mm-hmm. surtout yéen ñi nga xam ne ay instrumentistes ngeen ay mm-hmm. artistes ngeen bu ñu wax sa pour cent yéen la. est-ce que yéen bi nga créé bi est-ce que waxtaan nga ci ak ñi nga xam ne mooy SODAV ñi nga xam ne ñoom la nguur gi. Mhm. jiital ci loolu. Mhm. waxtaan nga ci ak ñoom. Mhm. avant ngay créer li ànd ceeg ñi nga war a àndal wala maanaam ñoom dañoo doxale doxalin woo xam ne gisoo leen ci seen bopp ba tax nga créer lu mel. waaw xam nga nag ñun euh, mouvement bi. waaw xaj na réew mi ñun ci lañ. parce que. Euh, euh, waa Njine Prodac. may nuyu bu baax sama rakk Fallou Ndiaye. di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm mhm. euh, bi équipe nationale waree football dañu càpp ñi ma nañu woo xale yi. Mhm. ñu dajale Sidi Diop Tarba Mbaye El Hadj Keita Mandiaye Seck Bambali xale yëpp dañ ne laa xam bu ma limee sax damay am ñu ma mhm. def ko pour gunge ko xale kon mouvement ci lañ yàgg naa boole ay mbiram. ci bépp événement bu xew rek boo xamante ni tey nit ñi soxla nañ hmm. ci lañ dafay jug pour accompagner loolu hmm. moo tax bi président jugee ñu hmm. càpp am na lu xew woote état urgence mouvement ci lañ dafa jug daal di kii bien vrai que nag nii ñi ngi koy soog a def mouvement mais ci lañ jooju dafa yàgg participer ci lépp loo xamante nii rek maanaam njariñu réew mi la rek ci réew mi lañ bokk lépp loo xamante ni njariñu réew mi ñun jug nañu pour participer ci wane ci ñun ci réew mi lañ bokk ci lañ légui nak lool mo dem batay di jur mouvement bi parce que tay bi nga xamanteni xam ni sunu ay rak bongo mani tay machallah ku ne xam nañ ni ci ni fête de la musique bi tay ñi gudjon ñu jouer ñep tay jouer nañu parce que à travers télémusique mm-hmm. wax dëgg yàlla tey tax na mm-hmm. bongo maan yu bari yi ñu gëjoon ñu gis tey ñu gis leen mm-hmm. te damay ñeewantal xale yi parce que ñu ñoom lii rek la ñu am tey tëggkat tama bi tamaam rek la am xamul leneen xamul leneen bien vrai que ne bi tey bu juddoo dañ koy dugal ci école mu war a jàng mais bu jàngee ba toll benn âge bi day xam ni wax dëgg yàlla lii mooy baaxu maamam mu dem defi ko te nag wax dëgg yàlla dégg naa ci mag ñi ñu ni nit kenn du ko xeebal liggéeyam kenn du ko xeebal feebaram li laay war a suuli tey ni nga xamante ni nit ki dafa xëy ibbi bureau toog fa di liggéey noonu la bongo maan bi respecté bongoom ba nga xamante ni tey man xam naa ay bongo maan yoo xamante ni da leen di woo fay leen cinq cent mille ñu ñëw bongool la tey ku mel ni Ousseyn Mbaye tey ku mel ni keneen ak keneen ak keneen parce que ci moom laay joxe exemple mais ñi ma mën a xam ak ñi ma mën a wax bari na tey tamakat bi nga xamante ni tey jii tamaam tey yaat ma ci am amul dem te du yóbbu tamaam macha allah xamal wax te gars yi wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ. parce que li ma neex mooy tey dama doon am gàcce trop dégg tey ñu ni artiste sàngam moom lañ jàpp fee daroom agressé wala dafa sàcc yëfu jàmbur. Mm. boobu ba tey gars yi ñu ngi diñ rek toog seen i kër. Mm. tey guitariste si beeg batteur beeg ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ci lañ daal. Mm. wax dëgg yàlla ñun. li ñu bëgg mooy. musique sénégalais jëm kanam artiste sénégalais yi nekk ci seen jàmm. di ci gërëm nag Khalil Seck mm-hmm. bu wër moom Ibrahima Khalil parce que li mu def ñu yombul. Mm-hmm. tey bi mu tijjee teleem bu ko neexoon mu tuddee ko leneen. Mm-hmm. te kon it Sénégalais yi dañ koy seetaan. mais bii moom wax dëgg yàlla képp koo xamante ni tey bëgg nga musique sénégalais. tey doo xëy suba ba ngoon. ak artiste bu mu mënti doon. suba ba ngoon te artiste bi nga bëgg yow tey kenn wanewu ko ci télé bi mënut a nekk amul. ñëpp la ñuy wane amul xaaj amul seet te damay faral di gis seen artistes yoo xamante ni dañ naan non man de dama dem télé sàngam mais wax dëgg yàlla dafa am seeni artiste bopp mm. mais tele bii rek moo nekk télé yi mbubbum Mbaye Fall mm. couleur bépp ngi fi couleur bu nekk ngi ñëpp la ñuy teg amul xar ma yàlla wax dëgg yàlla te nag wax dëgg yàlla boo nekkee ci bërëb mm. li koy suqali di ko jëmale kanam da nga war a ñaanal loolu parce que tey tele bii lu mu gën dem. musique sénégalaise gën dem. Deug la te nag bu ko nekkoon tey mu tuddee ko leneen ah. mais musique télé musique Sénégal la wax. Mm. wax dëgg yàlla yalla na ko yàlla defal jam ak mm. personnel bi ñi fi liggé ci kaw nak ba suuf. Mm. Té bo fi tay bo déggé télé bi jaloore yi mi def té bo dikkee da ngay xamni wax dëgg yalla ay xalé yu am ay xale yu ndaw rek ñoo fi ne. kon yàlla na seen yoon egg. Mhm. wax dëgg yàlla kontaan nañ. Mhm. parce que ñun mënuñu dem saa yéen yéen mhm. tamit mënu leen dem saa ñun. dëgg la parce que tey télé bi télé musique la wax. tey bu gisul musique tey jii. bu ko teg te tey jii tey bu gaa yi toogee. dem ndox ma. wax dëgg yàlla te nag trois mois yàgg na encore une fois. son excellence président Macky Sall. ak sunu papa ki nga xamante ni mooy Aly Ngouille Ndiaye. ah ak ministre de la culture. wax dëgg yàlla ñi ngi ñaanaat artistes yi ngi ci seen kër waaye sonn nañ wax dëgg yàlla. maa ngi leen di ñaanal yàlla ñu yàlla teggil corona ba ku ci nekk la nga nekkoon muy sa activité yàlla suñu borom bàyyiwaat la nga nekkaat ci sa yoon. acca ma nga noonu wax ji am na solo mbay si Ndiaye yaakaar naa ne du ñu ko téye dañu koy bàyyi mu dem ndax yaakaar naa ne mu ngi gën a guddi waaye man dama am dernière question boo xamante ne si dama koy posé Mbaye Sy mu tontu ko ñu soog koo yeewu. mbay si dañu ko gisoon muy def ay clip jamonoy mburu ak beurre la ñu gëj a gis Mbaye Sy génne it. fan yi passé récemment gis nañ ko mu génne morceau way ci Serigne Fallou nekkul Ramdan moo la tënk ba nga fàtte carrière wi wala Meysi Ndiaye lan moo tax boobu léegi déggaatuñ la waa mais nag xam nga nag Ramdan moom day day day suñu lépp ñu judd ci màgg ci bien vrai que ni tey jii tey bi ñu def mu rëbbër nekk gu ñu Ramdan mais Ramdan dafa nekk groupe boo xamante ni day suñu priorité mhm. amuñu lu dul moom. Mhm. parce que tey lépp lu ñu mën a am. Mhm. tey bu ñuy jug naan buur bër c'est parce que dañoo fekk. Mhm. suñu ay tonton. nekk ci ba indi ñu tey jii loo xamante ni sax la ci képp kuy faramaareen mu nekk ramdan kon duñ ko kafe duñ ci foo duñ ci ree dafay nekk suñu bakkan. bien vrai que nag ni bu ñu amee tuuti temps. Uh-huh. dinañ génn. bégal suñuy fans waaye daal wax dëgg yàlla incha allah ngeen product mi ngi fi incha allah dinañu jéem a fexe daal ba heure bu heure bu ñu xawee libre rek dinañu daw daal di def loo xamante ni moom lay suñuy fans di ñu xaare bien vrai que ni tey ñu ngi ñuy gis ci ginnaaw waal yi ñu ngi def suñuy ambiance mais des dañuy bëgg a gis ñun rek action yi bagage bop deug la lolou nak sante yalla ndax ah. ñaan bu nango sonol borom ñaan bu nango sonol borom koku moy mbey ci jaay l'incontournable mo deuk nak kuy sa bay kan moy sa yaay adjaratu hadisek sama yaay bi nga xamanteni ci moy borom jinn pro dak mbokum pro jaay suma pété suma cheikh waye fallu jaay gu ma ngone jaay fatte gan kaddu ngay tagok sénégalais yi ci single bu bes morceau bes bu melni mburok beur bu sénégalais yi di xaar ndax waaw li may tàggatoo nag d'abord damay damay ziar sama sëriñ. Mhm. sëriñ Cheikhouna Mbacké mu sëriñ Sidi mu sëriñ Abdoulaat. Mhm. waaye di am mbégte. Mhm. di nuyu bu baax. sama yaay Khady Seck. waaye di ci tegtal. sama yaay Aram Seck. wax dëgg yàlla parce que nit ku ne fa nga bokk rek ñooy sa lépp. dëgg la te olof nee na ku màgg di nga gërëm wala nga xarab. dëgg di wax nii tey dañu amoon mbégte ndax suñu frère Ibrahima. Arrête Ndiaye. Mm-hmm. nekk macha allah. nit bu baax. Mm-hmm. tey dafa doon takk soxna. waaw chéri say di ko ah. ñaanal ah. say bi yàlla na barkeel ah, waaw parce que mbëggeel dafa neex te wax dëgg yàlla loolu la waaye nag di profité du nuy waale sama chéri hmm, Marème Marème sama naar bi nga xamante ni macha allah Seydina Mohamed tey maamam yaayu Serigne Bara yaayu Fadal waaye daal wax dëgg yàlla di nuyu jegge nag ñoom Amina ak kenu Seen ak Munaas bu ma limee rek du ma matal ñoom ay di wax dëgg yàlla di am mbégte daal ak contentement di wax ni incha allah ñoo leen promettre ni leen incha allah mm-hmm. at mi daal bëgg nañu léegi chaque année. dinañu def ñett yoo xamante na incha allah Mbaye Sy Ndiaye ànd ceeg waa Ngin Prodac nag. Mhm. incha allah dina leen ko bëggal. Mhm. di wax ni incha allah ñu ngi dénkaat Ngin Prodac mhm. waaw ci wàllum collaboration. di wax ni tamit sunu frère bi nga xamante ni moom la ñu waroon a bokkal plateau bi. mooy Lamp Fall. macha allah xam naa ni temps bi moo ko xaw a xoj. mais moom tamit nit la boo xamante ni li mu mën a wax ci musique bari na. dëgg la ndax li mu ci def bari na. dëgg la. Euh, euh, naaru Fatim. Mm-hmm. di wax ni daal réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm. Mm-hmm. te lii di coronavirus. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla sunu borom saafara gaaw mu génn ci réew mi. ba jeex tàkk. parce que loolu rek la ñuy ñaan. di nuyu nag sunu PDG Doro Gueye. Uh-huh. di nuyu Waly Seck. Uh-huh. di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ak képp kuy téye micro rek di way ci réew mi. yàlla na yàlla defal jàmm. man Mbaye Sy Ndiaye maa fi jaaroon fii ci télé musique. Uh-huh. bii suñu bos la. eh waay man Mbaye Sy Ndiaye maa fi jaaroon ci télé bii suñu bos la moom su ko waxee dinañ ko gëm ndax la boo demee këram da ngay xam ne ndey di seex la njaaxaanaay rek lay tëddee waaye ci laay nuyu jeeg ja ca kër ga ñoom aminta séeri lil pro njaay kennu seen ñoom ko waaye marem bi nga xamante ni si mooy borom ceeb yi neex yi sama yaay xadi sekk ah fàttewu ma kenn ibro suma doom moom maa ngi koy fon waaye di euh, di di félicité suma mag suma xarit ibro njaay bi nga xamante ni si mooy séeri say tey doo doon jël soxna xam naa ne liggéey wooyu ma tënk rek waaye lu mu guddi guddi guddi bu ma wàccee ci plateau bi foofu laa jubal si léegi nag nañ dem seetaan seetaani mbay si ndax dafa def morso boo xamante ni si da coo way sama waa ji nga xamante ni si kenn du moom kooku mooy Cheikh Mamadou Fadel Mbacké di sama yaakaar di yaakaaram di yaakaaru Serigne Fallou Ndiaye Benjamin régie bu baaxee rek ñu dem seetaani morceau mbay si Ndiaye ñëwaat fii ci plateau bi